allo ki ne gennal legui legui dama la soxla may sa buntu keur tok rek si gennal si pey bi gennal legui wa d'accord accord ay jàng tooga ma kaala xam ne yow heure bu uh, ma waaroo yow laay gis aw ma kenn yow laa am. boo fi ñëwee carré nga may jox. Eh, jànk jànk tam xaarit gi laay wax yoruma fukki daram juróomi dërëm yoruma ko. yow sa xët-xët gu métti gi loo nga may doyee. jànk bàyyi naa xët gi instant lii dafa jàmp dafa jàmp ñëw na ba pare ñaata presque quatre jours xam nga cinq jours mos des. waa léegi instant dama jaxasoo. yow paa nee na fii lay liyoo tam. la jox. xanaa doo bàyyi ma daaneel sax. ma ne na la jox. bu yorul ah, na yorul nag bu dëgg yàlla tax yorul yorul yorul le koo xam ne bu yoree jox la ah yorul da nga koy comprendre na xam ne àdduna demee noonu. ana sa mbaraani. yow maa mbaraanaat man. salaamaaleykum. Njaay Njaay Njaay Njaay Njaay Njaay na ngeen def. Mbay Faal jàkk dum dem fay taal ba. ba am ngeen jàmm. ah. <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah. <laughs> dinañ ñu bàyyi xel rek tey wax ne eh, eh, di ñu sagal nag. yéen <laughs>

الحمد لله بارك الله رب الحمد لله بارك الله والله ودك لا والله يجومو سير يرك لاي ود والله يجومو ما خرج بيه انت يا طنط آه. سيك هو آه. رك لا ماي آه. واخ سير يا سي واخ دون نك لا ماي واخ انا يا الله بغ با اساي فم تول ني دا فم مو مو صح واخ دا ما نيه بغ نك سير يا ما خرا يا واخ مبا يا با واخ يا ايميسيون يا يال دوغال ايميسيون بي تخ مان ما فا يور يا بوك ايميسيون وي يال دوغال نما يور ايميسيون بي <laughs> kenn ki consultant la rek. Ah. Ah, consultant la def dafa neex sérieux dëkk bi yëpp ah. maaleykum salaam. na ngeen def toog na def. baarikàlla yaa ngi ci jàmm alhamdulilah. ngeen gën a yàq ma moom ak ay ay waay ñii dama leen bëggee. ñoo toj Galaxy TV. billaay borom Galaxy TV yéen rek laay suivre. wallaay dëgg xam na ko. na ngeen def billaay yéen rek laay topp. yéen rek topp ma keneen. billaay wallaay taala li ngeen waxtaanee démb yéen rek ko ko man. yéen a ngi koy toj. yàlla ah. xam na ko. baal démb ñi ay vingt ans ay six jóg ngay wax. wax nga dëgg wax nga dëgg dañoo baax na ndeysaan dañoo baax. xam nga démb tax ñu naan tey. moo moo ne dañuy bàyyi démb sax di wax ci tey. dëgg la dëgg la dëgg baax yow rek lay waxtaane fu mu toll yow lay waxtaane. ndeysaan ndeysaan mu ne gis nii sama xol bi. ay mu ñu baatu daal dama kontaan dama ah, kontaan mooy loolu. ndeysaan dama xol baa ñu seet bi xam nga gis bëgg moom yàlla koy def ci jaam. dëgg la dégg nga. dëgg la te nag maanaam xol moom. Mhm. la sa biir doog mooy feeñ ca kanam bul jooy. bilaay dëgg la bu la gis même bu lay seetaan day jooy. ndeysaan ndeysaan <laughs> man xam naa ne bëgg moom bu nekkee ci doomu aadama rek boo ko xoolee si gët dal ko xam. dëgg la. ku la xool sa yi sa ba yi yi xam naa ne bëgg na ma xam naa ne bëgg na waaye koo bëgg bëgg na la. mel ni sànq la ñuy daw sa biir <laughs> mani eh, eh, eh, mani. buñ ko laajoon nga xam ni tey. Ah. ni ñu bëggee. Mhm. bëggee nañ loolee. du ñu ngi sekk ak mbaw. ñun ñoo leen ñu ñi xam ne chaque jour ñoo ñu toog di xaar seen émission bi Galas TV. ndeysaan ñun ñoo leen gën a bëgg ay kilifa ngeen. wallaay wax nga dëgg dañoo nu ñu joxante rendez-vous rek. dañoo siw mën a gisee ñu bañ ñoo romb ci mbedd mi. daf leen dépassé ngeen yi daf leen loolu dëgg la dëgg la ay kilifa lañ. dañoo siiw yéen ba nga xoolee xam naa ay lekkatu téere ngeen ci tamxarit bi lañ tam di gi tamxarit gii. tamxarit gii gii ñu dëgmal nii. waaw ah, ah ah ah loolu nag ma ne day tembere nag ma ne waaw <laughs> may ma tuuti rek mbaaw ma soxla tuuti. Ah. ma ne léegi ah, ma valide doo valide. ma ne tur bi nakaate la sax. Tufa. Tufa man sekk fa. aywa dégg loolu ñaari tur yi daje la ma kontaan naa. Ah. Kiné. eh Mbawe. kon <laughs> dégg loolu yow. yow dañoo baax. ma ne comme ni ñu ko waxee rek valide nan. ni ñu ko bëgg nañu koy defee. incha allah. ay kilifa la dañoo siiw. kontaan nañ kontaan nañ trop kontaan nañ. nan ko paase. waa paas si ñaari junni. yéen it amul solo. ay waay kontaan naa de trop. <laughs> bul dox mukk naaj bi dina lakk. ay waay ku la bàyyi. jëlal yaa ko moom ay waay jërëjëf kontaan naa. <laughs> rendez-vous nag n'est hmm. pas raté. incha allah dina ñëw takkusaan bu la neex <laughs> ñaari junni laa ko jox.